un match de quart de finale euh, la victoire est à ta nga nga dem ba dernier quart-temps bi nga nërmeelu donc ce sont des regrets là soo xoolee coach bi à la fin du match il a soo xoolee conférence de presse bi mu délivré ce sont des regrets joueurs yi ils, ils ont regretté ce qui s'est passé mais ay faits de jeu la yoo xam ne doo ko comprendre parfois parce que dans un match lu ndaw benn détail bu ndaw mun na tax nga lu carrément nga passé complètement à côté 20 points d'écart bon d'aucuns pensent que c'est inadmissible mais en basketball tout est possible jusqu'à la dernière seconde tout est possible dans un match de basketball donc on a eu l'occasion de réaliser la hold-up face au Petro parce que Petro équipe bu mag la mm-hmm. waruñu minimiser trop Petro pour mettre l'accent sur l'AS Douanes bien que AS Douanes avait l'occasion en clair pour def hold-up bi mhm. mais gestion dernier carton bi surtout soo mënee benn équipe mu lay jëli en fait ñoom dañoo dañoo Petro dafa ñëw rek il a jeté presque toutes ses forces dernier carton bi ne lu ñu am jël dañuy jëli score bi wala ñu toog mhm. donc foofu. mais foofu foofu est-ce que est-ce comme ay Haruna même de même que le coach tamit est que waruñu woon maanaam maanaam o euh, jël tamoor ñu waxaat préparé yi li nga xamante mooy ay yeneen stratégie pour mën a contrecarrer l'équipe. pourtant euh, coach bi jël na temps mort. mais gis nañu day day presque day dafa yéex dafa yéex mais en dafa teel a jël temps bi gars yi commencé rattraper score bi. mu jël temps mais bi ñu duggaatee si terrain bi on n'a pas changé d'attitude. ni ñu meloon la ñu continué waat mel. Petro gën ñu la l'accent soo xoolee Petro bi ñu ñëwaatee noonu juste après temps mort bi. ils ont mis une zone presse ci kaw. pour nous empêcher de dérouler la ballon malheureusement instant boobu on a commis trois quatre pertes de balle. jeex na confiance bi dee na côté douane. instant boobu Petro moo amoon le capital confiance pour mun a. jëliwaat parce que ñoom il se disait que lu ñu lu ñu mënti def si on perd le match. grawul ñun on nous a de vingt points. mais buñ ko jëliwee on peut y croire. donc la pression était du côté de l'AS Douanes qui avait du mal à gérer ces dix effectivement parce que loolu moo nekkoon la clé comment gérer les émotions comment gérer le stress comment gérer le groupe pendant ces du ma wax dix dernières minutes yi sax mais sept dernières minutes yi laay wax. Mhm. parce que foofu la remontada bi commencé. Mhm, début quatrième quart-temps bi. ça va c' était quatorze points d' écart. ñu démarré quatrième quart-temps bi doon dem ba vingt points d' écart mais ba léegi ñun munuñu expliquer bi mu desee sept minutes ba bi muy des une minute. qu' est ba mu am genre benn coupure de réseau carrément. Mhm. amatul connexion entre joueurs yi. Mhm. amatul connexion entre joueurs yi ci terrain bi ak banc bi. Mhm. coach yi ak bi. donc loolu moo doon. nërmeelu bi est-ce que ce n'était pas un manque de lucidité parce qu'à un moment donné. Euh, les joueurs war nga mën a xam ndax am nañu lucidité quand ils perdent le ballon euh, dans un dans un espace réduit ñu perte bal est-ce que tu ils ne reviennent pas comme il faut non on doit savoir si ces jours-là euh, leur jambe tiennent leur tête est essayer de faire des changements mm-hmm. est-ce que c'est pas ça aussi parce que lucidité aussi boo ko amulee bal boo yor mm-hmm. da nga mm-hmm. ah, je pense que ni loolu waroon nañ ko waroon nañ ko mën a xool lucidité soo xoolee Abdoulaye Arouna. suñu meilleur joueur. Ah a de la saison. <laughs> Ah dernière perte de balle bi moo ko def. Ah instant boobu douane moo mëne woon un point d'écart. Mhm. mu des ay secondes. <laughs> vingt et quelques secondes moo ci desoon. et le voilà ñu def ñu benn contre attaque. Mhm. teg balle bi mu dugg. donc man je dis que au fait. booy nërmeelu. Mhm. mais man genre bi maa ngi koy soog a gis ci équipe AS Douanes quand même. ah vraiment parce mais, euh, nekkul nekkul loo xam ne on a l'habitude de le voir ci benn équipe. Mhm. man depuis bi ma dalee seetaan AS Douanes ba léegi. Mhm. bi ma xamee AS Douanes ba léegi pour la première fois ma gis AS Douanes perte match nii. d'accord merci beaucoup Abou Thierno ban ban part de responsabilité bi nga xamante moo di si le coach bi am de même que ñi nga xamante mooy les joueurs. bon. bon les responsabilités sont partagées. parce mhm. que coach bi mooy joxe les consignes mais il reste sur le banc. moom du euh, les joueurs aussi à un moment donné euh, je pense que bi ñu demee ba mu ne vingt points ils se sont vus très beaux pour ñoom le match était terminé parce qu'on a vu ay actions yoo xam ne c'est du chambrage euh, gis nañu Jean-Jacques muy bondeel di tëb. Mhm. xam nga en benn instant il avait une possibilité mu drive il était en un contre un. en deux contre mu taxaw tempéré Bondel téye bal bi donc à la limite à ce moment-là ñu ils se disaient que certainement dans le match est plié le match est plus que bon ils étaient en confiance euh, ñu ngi doon tout le réussissé affaire faire te euh, comme li a Seye wax basket virage dafa gaaw pour un rien tu vois affaire yi bu tourner rek parce que le momentum en basket il passe d'un camp à l'autre très très rapidement balaa ngay comprendre. Mhm. maintenant man su ma amee lu may def reproche au coach quand il a senti que hémorragie mi ngi am. Mhm. Euh, mënoon na jël sama xalaat la un temps mort deux temps rien que pour casser le rythme rien que pour casser le parce que ça se fait nga gis sa sa équipe mu ngi commencé daw di kii. nga jël benn temps pour couper un peu jëlaat beneen parce que. adrénaline bi day commencer wàcc mhm. surtout yow quand tu joues tu es à plus vingt mhm. sa adrénaline day wàcc sa sa influx nerveux tamit mhm. donc tu ne concentration bi am au début doo toog am mais là tu prends le temps mort et puis benn instant aussi ce qu'on ne dit pas les joueurs étaient fatigués parce que ce qui est très difficile en basket c'est défendre c'est quasiment sept joueurs ñoo joué match bi ah. et pendant trois cartons ils les gars étaient cuits. Mhm. à ce moment-là je pense qu'il aurait dû boo demee ba mu ne points mais mhm. les titulaires tu les mhm. nga dugal les joueurs du banc. ñu défendre bu boo gisee ni kii am na fekk ñee jox nañu récupérer nga parce que le match contre euh, Rivers Hoopers. c'est le même scénario. Rivers dem na ba à 24 plus 24. mu dugal les joueurs du banc. ñee commencé di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw. mu génn si dugalaat ñoom aarul dugalaat ñoom boissé. après on est repassé à plus 5 plus 6 tu vois pour enfin en fin de compte gagner mais je pense que peut-être loolu la ñu di reproché et puis ce qui est dramatique mooy ni que c'est une défaite boo xam ne c'est vrai c'est la première fois nga gis douane mais ça va rester dans l'histoire mm-hmm, mm-hmm. ça va rester dans l'histoire le finaliste de l'édition présente ñëw mené de 20 points à mm-hmm. moins de 7 minutes ñu remonté ko man même dans le commentaire je disais maa ngi doon wax euh, Idi Cissokho je j'espère en tout cas je ne pense pas que dinañ leen infliger benn vingt zéro ah, benn euh, run de vingt à zéro pour moi bon. mais problème mooy am na euh, ñu si bari yoo xamante ne maa ngi doon waxtaan ñoom peut-être Dakar Arena avant gars yi dem fi nga xamante moo di Kigali ñoom au fait nee su ma laajee bi ma laajaatee après nee nañ défaite bi bettu leen parce que lu ñu wane fi nga xamante moo di Dakar Arena c'était pas convaincant du tout. mais après ça dépend parce que euh, déjà bi ñuy ñëw fii Dakar Arena coach yàgg na ko ils n'ont de temps pour Euh, bon ensuite c'est c'est c'est c'est comment on dit ils ont ils ont ils ont fait un bon démarrage ensuite ñu perdre perdre revenir bon c'était un peu boo xoolee dans le fond parce qu'on n'avait pas de scoreur attitré parce que Arona il met 35 points contre contre je pense contre Rivers là contre Yves Monassi le double 35 points deuxième match waaw mais de 20 à moins de 20 points ce qui veut dire qu'on n'avait pas de véritable scoreur boo xamante ne nii il pouvait à certains moments comme démb fausse quand l'entraîneur sent que ñi ngi flanché wala équipe le mi ngi ñëw rek il le mm-hmm. met il deux tirs à trois points mm-hmm. il refait la distance on n'avait pas ce joueur-là à l'AS Douanes Jean-Jacques Boissy sur les six matchs n'a été bon qu'une seule fois très bon mooy match bi ñuy perdre. waaw mooy tu vois kii mm -hmm. euh, euh, euh, Nick euh, comment il s'appelle euh, euh, Ibrahim Thomas qui était censé aussi être une recrue importante. mën nañu jàppale c'est un de la compétition tu vois mhm. donc bon. Mike Fofana même sur ce match-là Mike on l'a pas, vu on l'a pas senti on l'a pas vu tu mhm. vois xoolal sur le chouchoute à trois points bi fausse du dugal il se fait dribbler comme un bleu dañu passe wal bi mu daw ba génn corner bi waa ji dafa taxaw rek moom mu romb mu jël il se c'est on a manqué de constance en fait on a manqué de régularité sur les six c'est pour ça que suñu évolution nekkoon en dents de scie tey mu baax suba mu après maintenant c'est des leçons à à à tirer moi je je veux bien qu'on nous dise que on veut miser sur des joueurs africains c'est bien mhm. dans l'idée c'est bon mais aujourd'hui les meilleurs c'est les américains am si au moins benn équipe ah, xam nga dans le sport mhm. euh, boo gisee sax euh, léegi les européens imposent les joueurs jusqu'à quand ils peuvent tenir am na ñoo xam ne euh, dans le football à la soixante cinquième minute ils commencent à avoir une ah, baisse d'autres à la quatre vingt minutes quatre minutes ils mm-hmm. commencent à avoir une baisse certains di am crampe yooyu est-ce que au niveau africain ces choses-là sont regardées

quand il arrive là on le sort ñoom ils comprennent mhm. d' autres quatre-vingts minutes ñi am crampe et cetera yooyu yëpp dañ koy xam mhm. c' est le service médical qui doit le faire mhm. aujourd'hui quand on remarque que la douane en fin de partie y a toujours des problèmes on devait s'attendre à cela ni mais qu'est-ce qui ne va pas et puis intelligence il reste des secondes j'ai le ballon je ne le perds pas je la je, je le garde ce ballon là quitte même à le jeter hors ah, mais attends pour perdre parce que aujourd'hui l'entraîneur est dehors oui, mais dans le terrain dans le terrain il y a l'intelligence des joueurs qui prime et leur détermination aussi mm-hmm, mm-hmm. parce que l'entraîneur peut mettre euh, toutes les stratégies qu'il faut mais si les joueurs aussi ne font pas ce qu'il faut aussi mm-hmm. c'est le problème c'est comme dans le football effectivement c'est c'est tu as parfaitement raison doyen euh, Abou euh, Thierno léegi léegi nii parce que peut option la parce que gis nañ daaw daaw joué final ak ñi nga xamante ab mélange la woon des africains ak li nga xamante mooy des américains mais cette fois ci coach dafa opté jël ñi nga xamante mooy les joueurs africains pour ñu maanaam euh, ànd ak moom ci compétition est ce que tamit loolu mën a jàpp ne c' est une erreur parce que gis nañ li nga xamante mooy américains yi ñu def gis nañu euh, mu ne américain bu euh, bu euh, bu Uppers nu mu nu mu prouvé de même que bu Monastir mooy Christopher de même que ki mu nga léegi mooy mooy Rwanda force gis nga mais est ce que tamit mën nañu jàpp ne erreur de recrutement la si part ki nga xamante mooy Pape Gueye ils ont fait un choix ils ont misé sur des styles de joueurs euh, ça n'a pas porté ses fruits donc ñoom seen bopp ils ils sauront que yi ñu def peut ils étaient pas à la hauteur des attentes donc c'est quelque chose boo xam ne constat la bu gars yi xamandoo peut-être prochaine fois ils vont rectifier le tir parce que année dernière soo xoolee. l'équipe tournait autour de Chris Crawford. ah oui Chris c'était le meilleur scoreur. Mm-hmm. chaque match il nous mettait vingt points ou plus. Mm-hmm. donc euh, loolu ça nous a beaucoup aidé mais cette année on avait un seul meilleur Abdoulaye Arouna il a eu un match sur trente cinq points. yeneen match yi yëpp c'est à moins de vingt points donc basketball Africa League sooy jeu compétition bu élevé noonu si na n'as pas un joueur capable de te mettre plus de vingt cinq points chaque match donc y a des de fortes chances que nga perte match yu bëri te loolu moo dal AS Douanes mm-hmm. le jeu était reposé sur Aruna mm-hmm. bi mu doxee on a fait un match parfait contre l'US Monastir on a gagné normalement mais yeneen match où il a été moyen l'équipe a été laborieuse. Mhm. tey ñu perte suba ñu xaw a gagné donc mooy li ñuy wax avant ñuy quitter à Dakar donc nit ñi ils étaient pas trop rassurés par le jeu produit bon le coach il l'a même admis hein, mhm. parce mhm. que il a clairement dit en conférence de presse que depuis Dakar euh, bi muy wax naan un match se jour sur 40 minutes. Mmh. Et depuis Dakar, on n'a jamais été constant pendant 40 minutes. Si, si, l'a dit. Donc, amoon na lu desoon lu bëri ci équipe bi avant ñuy aborder final eight bi. Mhm. Donc, ça a été fatal. Donc, maintenant, il va falloir tirer les leçons. ba pare xool si jamais l'AS Douanes a la chance d'être encore champion du Sénégal, peut-être. donc dinañ xool ñoom fan la ñuy teg seen tànk su fekkee ils ont des ambitions dans cette Basketball Africa mhm. League. parce que bool bi nag. compétition bu élevé la boo xam ne mm-hmm. plus les années passent mm-hmm. plus le niveau est élevé mm-hmm. je m'attends même en 2025 à voir des joueurs européens des joueurs sud-américains venir jouer jouer la balle ici en Afrique donc il va falloir avoir euh, une très bonne équipe et puis li ñu gën a man ci sama jugement li ñu gën a sonal mooy presque on avait un effectif quasi nouveau soo xoolee y a eu des recrues qui sont venus mais ci benn mois munoo ci am benn équipe bu huilée loolu boo ko defee genre coup de baguette la quoi mais nekkul loo xam ne c'est donc équipe bi buy soox parfois mu dox parfois mu bañ a dox c'est tout à fait logique parce que son sont des joueurs yuy soog a rencontré wu trois semaines la ñu tase àndandoo bugg dem jouer benn compétition bu élevé mhm. donc loolu aussi benn benn benn paramètre la boo xam ne yàqal na équipe bi lu bëri mhm. parce que base u équipe bi yëpp mi ngi dakaar mhm. donc euh, le staff a fait une option comme ni ngay wax recruter des jours mais il fallait que ñoom ñu am temps comme année dernière l'année dernière l'équipe a joué au mois de mars la conférence Sahara ici à Dakar ils ont eu avril mai ba fin mai pour se préparer au final eight. Mhm. mais bi pas dañoo jouer conférence Sahara bi une semaine après ñu dem à Kigali. Mhm. donc yenn déchets yi nga bàyyi fii Dakar moom ngay oh, yóbbaale. Ah a porté préjudice à l'équipe. Ah nekk di jouer bal bi dafa nekk benn compétition vraiment bu élevé ñoom ñu xam que ñu joué woon daaw li nga xamante moo di la finale cette fois ci ñu euh, ne peut-être am am na si ay regret quoi. si on regarde le résultat forcément. Parce que, comme on l'a dit, ce qui a manqué dans cette équipe-là, surtout, c'est des scoreurs. Basket, <laughs> pour gagner, il faut marquer au moins un point de plus que l'autre, à mon, truc. T'es, bon, si, tu as, des joueurs qui ne sont pas constants, hein, euh, parce que tu sais, en basket, en starting five, ils peuvent être très performants, mais il faut qu'il y ait en sortie de banc quelqu'un qui soit en mesure de faire la différence. Un sixième homme quoi Un sixième, septième homme même parfois. Euh, koo xamante ni nii bu score bi commencé écarté wala mu commencé fondre moom mooy dugg compter sur son adresse et malheureusement ça on l'a pas eu donc je pense que euh, aujourd'hui cette équipe là c'est une bonne base bon malheureusement tu peux pas garder la même équipe un an de suite c'est pas possible parce que gars yi joueurs yi aussi ils vont aller jouer ailleurs pour ñëwaat mais ce qui est sûr mooy ni que euh, je veux bien qu'on opte pour pour des joueurs africains c'est bien mais quitte à prendre des parce que ils vont aller chercher les meilleurs qui peu importe qu'ils soient africains ou pas euh, ñoom dañuy dem jëli américain donc toutes les équipes il y a eu au moins deux américains c'est là le problème au moins euh, de dépenser des millions pour un joueur ah, peut-être c'est peut-être ça. ça mais ça, mais l'année dernière quand ils l'ont fait on a vu le résultat on a été jusqu'en finale voilà euh, américains même deux américains cette année tu n'as pas d'américain dans ton équipe tu n'es pas allé en finale donc Euh, le problème c'est pas les Américains hein. Mhm. c'est c'est d'aller chercher les meilleurs de bons joueurs de et pourtant avant gars yi dañ ciy gagné gars yi wax a des noms ñu ngi doon wax ay noms Branco wala ki nga xamante mooy Ibrahima Samb mais finalement affaire dafa mujjee capoté ah bah oui parce que peut-être qu'on s'y est pris un peu tard mais mais même bon c'est vrai que Branco euh, dans une très bonne forme moom c'est un meneur moderne c'est un meneur qui facilement dans un match te mhm. mais est-ce que lañ soxla peut-être qu'il a un bon bac parce que man euh, su ma xoolee Jean-Jacques Boissy n'a pas trop marché cette compétition bi il a fait un bon match moom mooy la dernière fois euh, quelqu'un comme euh, son son problème reste le même c'est pas un meneur scoreur c'est-à-dire que il peut organiser le match il peut organiser les attaques il dribble très bien mais mm-hmm. du dugal mais bon peut-être que oui un bon meneur ok un autre meneur un bon backup pour Jean-Jacques Boissy oui mais derrière un joueur adroit c'est-à-dire un un killer. Mm-hmm. un un ailier boo xamante ni bal bi su ñëwee tu as une chance sur deux. dugal mm-hmm. ko c'est ça qui a manqué. Mm-hmm. parce que peut-être que il faut voulait faire jouer ce rôle-là à Ibrahima Thomas mais Ibrahima Thomas c'est un joueur quand il n'est pas en confiance mënoo am ci et malheureusement. et pourtant daaw Monastir vraiment moo nekkoon élément. oui parce que était en confiance cest un joueur qui a besoin qu'on lui montre que man il doute en équipe nationale il est en équipe nationale depuis 2012. Mm. mais à chaque fois c'est la même chose booy xool après ba ba ko si éjecté quand il est confiant c'est-à-dire que de très loin il peut facilement te mettre trois quatre tirs euh, à trois points mais bu ñàkkee confiance am ba pare parfois doo xam lan lañ koy jouer moom il n'est pas à l'aise au poste cinq. il n'est pas à au poste 4 moom il est la moom da koy ne 3 la bëgg ñu joxe ba jox mais loolu tamit pour boo nekkul boo amul. nekk jour aussi mooy loolu def. Mhm. et malheureusement il est c'est un joueur qui un peu handicapé par sa taille parce que normalement un big man avec sa taille il doit jouer big man mais. il se sent pas bien à ce poste là. parce que c'est pas un jeu de combat. donc a qu'est-ce que l'AS Douanes avait vraiment besoin dans cette compétition. Thierno résumé la ko. un scoreur parce que le coach a mis tous les systèmes nécessaires y avait un effectif il y avait tous les joueurs joués il n'y avait pas un scoreur parce que soo xoolee basketball Africa League bi si tu n'as pas quelqu'un un leader qui guide l'équipe ñun on a manqué de ça donc au fait Abdoulaye Arouna la ñu tegoon ci kaw mais benn rendement bu satisfaisant par rapport ak niveau baal bi la def contre US Monastir. Il a sorti le grand jeu l'équipe de l'AS Douane a déroulé foofu match bi dafa jeex gars ne rien à dire. Mhm. soo xoolee match bi mu jeexee à kii arena ba. Mhm. ñëpp dañu ne ah, nice. c'est un très mhm. soo ko buggee réussir. répété boo xam ne mooy def loolu. US Monastir seen équipe bi baaxuloon noonu mais Chris Crawford moo leen téye. Chris Crawford chaque match il fait day soigner ah, statistique am. il ba biñ leen di dóor quart de finale. donc c'est ça il faut nga am benn équipe boo xam benn joueur boo xam ne euh, il va porter l'équipe ba pare nag ci ginnaaw ñun soo xoolee année dernière li nekkoon suñu force y avait Chris Crawford mais ci ginnaaw on avait des joueurs yoo xam ne ñu ngi doon topp si ginnaawam Jean-Jacques il était en super forme. y mm-hmm. ah, aussi y en forme. Mm-hmm. Samba Dali il était en forme. Mm-hmm. donc on des joueurs yoo xam ne bu ñu duggee même bu dee pour trois minutes la ils peuvent gérer le score. ñu génnewaat leen ñu dugal ñoom Chris ñu joué mais cette année loolu amuñu ko. Mhm. manque de préparation bi. ça nous a coûté cher. mais est-ce que manque de préparation bi tamit amul dalul tamit yeneen yeneen yeneen yeneen club yi parce que yeneen club yi dem dañuy dem dem dem def superviser recruter ay joueurs. non mais les autres clubs soo xoolee ils ont leur effectif leur noyau de base d'abord bu ñuy recruter benn ñaar recrues ñetti recrues lañ ciy yokk mais ils ont leur noyau de base. Rivers Coopers bi ngay gis nii. dañoo am seen noyau bu dëgër ba pare. seen ils ont ajouté. américain bi moo leen moo leen Will Perry. Will Perry presque moo yor équipe. ils pivot américain euh, nu mu tuddati sax euh, l'expérimenté là damay fàtte tur bi plus euh, seen shooter bi donc ils ont ils avaient ils avaient un noyau bi nga xam ne moo dominé championnat Nigéria ba pare. Mhm. largement ñu yokk ci. AS Douanes ren soo xoolee équipe bu bees la andi. Mhm. te équipe bu bees si les joueurs individuellement sont bons. mais pour pouvoir avoir une équipe huilée pour une compétition c'est difficile tu bu ñu dajale woon joueurs yu bëri teg si le temps de préparation ne pas suffisant pour que l'équipe puisse pour pour que mu am benn mélange bu homogène mhm. day metti mhm. te loolu c'est un point essentiel boo xam ne ça nous a coûté cher ba pare nag recrues yi ñëw certains ont déçu mhm. donc c'était trop difficile c'était trop difficile doyen gis ñu mëne la vingt points à sept minutes de la de la fin du match yow nekk nekkoon nga joueur pro nekk nga haut niveau yow après lan man mën lan la mën a joué yéen yéen nga xamante yaa nekkoon si biir terrain perte le match. waaw c'est c'est un découragement total c'est et ça ce qui l'amène souvent euh, c'est une perte de forme. Euh, comme ni ma doon wax léegi des joueurs qui ne peuvent pas continuer l'entraîneur ne le voit pas eux ils sont pas honnêtes pour dire il faut me changer et c'est ça qui amène que l'équipe bascule parce que euh, booy tase équipe boo xam ni yaa ko mënee après moom mu ñëw dugal benn bi am regain euh, de ni ñu koy waxatee de confiance yow ngay baissé regardez le match contre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire il des regrets c'est la Côte d'Ivoire qui prend la Coupe ñun mënoon nañu na ñu ko passoon qu'est-ce qui se passe il a eu de nos joueurs un but raté un retard sur défensif et après on dit que c'est l'entraîneur alors que ce sont les joueurs qui devaient euh, dans le terrain coder ça et le décoder une perte de balle de de de, de, de nos joueurs un défenseur qui est déjà parti alors qu'on n'est pas sorti de notre zone et le ballon va vers sur son côté il est en retard le gardien sort c'est un peu raté donc yooyu mooy indi des fois quand tu quand tu te mets euh, quand tu te couches et que tu ramènes le match, tu te dis mais pourquoi celui-là est en retard? Pourquoi j'ai raté ce but-là? Est-ce que tu comprends? Et c'est ça qui fait que on a le, le ballon qu'il perd au basket. C'est ce qui qui qui détruit là. Attends, mm -hmm. c'est pas une faute de l'entraîneur, ce n'est pas une faute du collectif, c'est une faute individuelle, il a perdu le ballon et les autres ont attaqué et ont marqué. s'il n'avait pas perdu le ballon et l'avait donné à un partenaire on n'aurait pas perdu ce ballon et là on, on aurait eu des points d'avance jusqu'à la fin du match donc kooku c'est une fête donc je pense que aujourd'hui lenn moo am quand on est professionnel et qu'on est recruté tu dois pouvoir être en mesure de coder et de décoder les joueurs qui sont recrutés aussi parce que tu es professionnel, tu es intelligent, mmh. c'est ton métier. Mmh. Donc il n'y a pas de l'entraîneur qui va convoquer ces joueurs ils savent si ces joueurs-là peuvent aller ensemble il les met dans le terrain maintenant si ces joueurs-là ne donnent pas ce que l'entraîneur leur demande c'est ce qui fait que des fois euh, un entraîneur convoque un joueur il voit que ce joueur-là ne fait pas l'affaire les autres disent ouais ce joueur il faut le convoquer mais non pourquoi il le reconvoquerait parce que l'entraîneur a vu qu'il ne fait pas mhm. ce qui code mieux ses, ses partenaires et ses adversaires et qui sait jouer par rapport à des phases offensives mm-hmm. et qui sait aussi défendre par rapport au jeu de l'équipe adverse. Mmh. C'est ça le football. Maintenant, je pense que la douane a perdu son trophée. Il y a des regrets parce que Kylian, Kylian éliminé à un point à la fin du match kooku moo jël trophée bi en passant par cent et quelques. merci beaucoup euh, doyen Thierno gis nañ ci recrue bi amul benn benn joueur boo xamante ne buy évoluer ci local. nekkul ne li nga xamante moo di suñu championnat moo àggul niveau bi nga xamante ne peut-être ñu war nañ mën a maanaam titee li nga xamante moo di baal bi moo tax gars yi seen technicien bi muy Pape Gueye du xool li nga xamante moo nekk si alentour am si yeneen club bi niveau bi la ou bien qu'est-ce qui se passe. booy suivre euh, résultat wu basket Sénégal. Abou ah, dina si ñëw. si ngay comprendre y' a euh, problème. yaa am na mm. y' a y' a y' a un vrai problème de niveau c'est c'est vraiment pas la même chose parce que même booy parce que le baromètre pour moi le, le baromètre c'est pas c'est pas la balle c'est l'équipe nationale qui on convoque en équipe nationale en général ñaata jours locaux mooy deux wala trois maximum te après sax booy xool ils viennent participer à la préparation kii bi ñu ñu ñu écarter leen donc euh, y a effectivement un problème de niveau au Sénégal et ça pour moi y a deux choses qui l'expliquent c'est euh, benn formation bi melatul comme ni mu waroon mel ñaareel on joue très peu de matchs dans le et ça ça pose problème parce que un championnat pour ñu mën a élever niveau bi il faut qu'il y ait un maximum de matchs xam nga ñuy jouer lu bëri tu vois euh, ñun à la fin de notre championnat on joue quoi une équipe joue maximum vingt cinq boo xoolee phase de groupe yi ak play yi mm-hmm. bon buñ si yokkee ay tournoi Saint-Michel bu bëree bu bëri ay trente match la lay lay lay lay ah. su ma su ma su ma juum par équipe et encore quand je par équipe c'est les équipes yi dem ba jusqu'au bout voilà ba finale donc il faut que la direction technique essaie de trouver un moyen ñu am plus de matchs que les joueurs aient plus de matchs parce que c'est loolu mooy tax entraîneurs yi di corriger mais entraîneurs yi aussi il faut que ñu gën leen former parce que même au sein de l'équipe nationale je prends toujours ça comme baromètre mm -hmm. c'est c'est c'est un jeu de chaise musicale c'est un petit groupe boo xam ne si ñoom lay tourner mhm. parce que ñooñu ils ont eu la chance d'aller à l'extérieur peut-être ils ont été internationaux dem indi institut et d'ailleurs maintenant la tendance est que nos équipes nationales des expatriés ñoo koy entraîner c'est des c'est des entraîneurs qui ne résident pas pour la plupart au Sénégal donc les entraîneurs locaux il faut que ñu gën a former wu tu vois gën former à la base mais aussi que la fédération insiste sur le fait que les équipes ñuy jouer championnat bi ñu am des équipes de petite catégorie ñuy jouer parce que ñun man je me souviens moi quand je douane bu waree jouer Jeanne d'Arc en senior. c'est toutes les catégories dañuy jouer en mini jouer en cadet jouer en junior. contre la Jeanne d'Arc mhm. tu vois léegi bu ñu pareewaan en général avec nos licences on nous permet ñu dem dugg stade seetaan mais bu fekkee ni petite catégorie du ñu jouer tu peux pas corriger tu peux pas te mënoo yem ci ay site académie ak ay ak ay ay euh, ak kii NBA. Euh, pour pour aller détecter un deux trois jours c'est pas ça donc il faut tant que travaillewuñu loolu à la base suñu championnat bu ñu bëggee relever niveau ça va pas faire un an deux ans mm-hmm. il faut un programme décennal mm-hmm. tu te dis sur les dix ans je commence par la petite catégorie je forme les entraîneurs à la base ñuy former les petites catégories ñuy gravir les échelons tout doucement on a été la meilleure nation de basket en Afrique dans les années mm-hmm. garçons et c'est la Tunisie ou l'Angola. vingt ans ñuy daw ak et chaque Afrobasket quasiment on a les moyens de gagner. Mhm. mais tout le temps c'est des choix de coach ou des mauvais choix de joueurs de ay détails ah il y a au moins un un Afrobasket boo xamante on l'a perdu à cause de l'arbitrage mhm. mais bu weesoo loolu. Mhm. c'est c'est c'est c'est il y a du travail et il faut vraiment que les gens mettent le doigt dessus sinon nii rek lañ ko nar jàppee chaque plateau ñu dem toog <laughs> ñëw di <laughs> di débriefer ay kii waaye mais yow mi nga xamante ne tous les week-ends mu di samedi dimanche yaa ngi si yi nga xamante moo di parquet yi est que amul benn jour boo xamante ne peut moo di AS Douanes bu ku gaay bàyyi gaay bàyyi ko ginnaaw bon personnellement j'aurais souhaité AS Douanes am ay joueurs locaux fii mais ban joueur la ñuy jël ak ban post par rapport ak li coach bi soxla parce que déjà AS Douanes dafa def un recrutement massif pour saison 2024 bi la plupart des joueurs ont été laissés à quai ñu dem recruter ay joueurs étrangers donc ça interpelle un peu sur notre niveau est-ce que suñu niveau baax na est-ce que suñu niveau c'est moyen est-ce que suñu niveau c'est faible il faut qu'on se pose cette question on joue comme Thierno ni mu ko waxee mais man constat bi ma def mooy nos joueurs locaux sont en manque de compétition. Mhm. par rapport ak expatriés yi mënoo jouer championnat jouer sept matchs aller sept matchs retour dem playoff ci championnat d mhm. loolu buñ buñ ko changé wul on aura un manque parce que coupe Saint-Michel yi ngay gis coupe du maire yi ça concerne quelques huit. neuf équipes ce sont les équipes de Dakar ce, sont, ce n'est pas toutes les équipes du Sénégal donc championnat ak coupe du Sénégal mooy baromètre pour mesurer niveau de compétition bi fii dans le basketball sénégalais mhm. te en championnat et en coupe du Sénégal si on totalise le nombre de matchs pour une équipe qui veut jouer la finale c'est peu mhm. donc nos joueurs ont un niveau bien défini la balle à un niveau élevé mm. il faut que ñu waxante dëgg ah c'est clair le championnat local niveau bi fii la yem balle bi niveau bi fii la yem si tu veux aller léegi niveau boobu naka lañ mën a ba atteindre ko. il faut qu'on ait des équipes capables de participer à une compétition africaine dignement avec un groupe bien défini on ne peut pas mënuñu fi nekk di taqale chaque année boo gagné championnat bi après ngay xalaat ban effectif ngay yóbbu baal. il faut ñu am un loolu tamit doo may doo doo valoriser. doo valoriser ah, al ahli bu Libye bi ngay gis nii mooy jeu final bi contre Petro al ahli noyau bi yëpp ce sont même club bi lañ nekk ñoo gagné seen championnat te ñu ci bëri ñu ngi ci équipe nationale Libye bi. donc ce sont des joueurs yi nga xam ne ils ont l'habitude de jouer les éliminatoires de l'afrobasket. Mm-hmm. ils ont l'habitude d'être convoqués en équipe nationale. ils ont un niveau beaucoup plus élevé que nos joueurs yi nekk fi nga xam ne championnat coupe du Sénégal coupe du maire ngay joué donc il va falloir qu'on trouve cette solution mm-hmm. pour permettre au championnat local de rehausser son niveau mm-hmm. il faut que le niveau soit rehaussé pour que ñu mun dem Afrique grand bii bi muy ñoom bi ñuy nekk Jeanne d'Arc doon dem Afrique ñun dañ leen daan xool Jeanne d'Arc dream team la amoon mm-hmm. donc c'était des joueurs sénégalais yoo xam ne ils avaient un niveau africain ñu leen daan woo équipe nationale. basket bi tamit il faut que ñu egg stade boobu. te loolu il faut ñu jaar ci professionnaliser ko. ok tant que professionnaliser wuñu basket bi. Mhm. on ne pourra pas avoir un niveau élevé. parce que loolu mooy permettre équipe yi di dem di recruter ay joueurs étrangers pour le championnat d' abord di dem di recruter di forme parce que quand tu professionnel dañ lay imposer benn niveau de structure boo xam ne sa petite catégorie dañ koy imposer muy compétir bu boobaa di nga am. comme li ñuy wax la mafia. Mhm. espagnol yi ni ñu koy waxee. <laughs> da nga koy am da am ay boy yoo xam ne yenn saa yi da leen di surclassé andi leen am ay recrue mhm. te boobaa nag booy dem compétition africaine ay ñaar ñetti recrue ngay soxla. mais tant que ñi ngi demee nii nag ah. <laughs> la si bëgg mais dafa wax lu am importance suñu basket niveau bii la baal niveau bii la mhm. ñiy fii niveau bii la ñuy tasee ak seen i adversaire mais quand tu en Afrique. d'un autre niveau chercher xam nga les européens dañuy naax regardez l'équipe du Real de Madrid ban espagnol nga siy gis ñaar ñett ils ont été chercher les meilleurs partout pour indi leen pour ñu mën a renforcer nga dem d'autres monde ils ont recruté d'autres joueurs. mais xam nga bu nga comprendre mais suñu club yi. amuñu amuñu on veut pas mettre les moyens defal nang non il faut qu'on mette les moyens parce que aujourd'hui qui va mettre les defal nang aujourd'hui si la douane va chercher des joueurs leen fay ay millions. dëgg loolu dëgg pourquoi ne paye pas payer à jours ici des millions jox leen oto jox leen kër ñuy lekk mais jour basket dañuy dugg kaar. attends defal naa dañuy dugg kaar dañuy liggéey leneen lu dul liggéey leneen ñëw bëgg basket mënul ne il a dit professionnalisme. loolu nag tant que nous nos dirigeants comprendre ñu ko jël ak boobu ñu jox ko joueurs yi c' comme aujourd'hui Teungueth FC qui va aller en Afrique. Teungueth FC s'il ne recrute pas des joueurs est ce que tu comprends on dit pas que nos joueurs sont mauvais. yaa ngi dégg mais partout dans le monde da ngay recruter trois quatre joueurs ñu ñëw ñun bi ñuy Coupe d'Afrique c'est parce que tous les joueurs étaient en équipe nationale et l'équipe nationale représentait le Sénégal c'était pas des professionnels qui étaient amenés mm-hmm. dans l'équipe nationale il y avait moi Issam Pape Ndiokor Fall on jouait à l'extérieur on savait ce que c'était l'Afrique mm-hmm. mais des joueurs qui n'ont jamais eu à aller en Afrique leen yóbbu en compétition mais nga dem fekk les meilleurs d'Afrique fekk Raja jël na leen nga dem fekk ni euh, ni ñu koy waxatee équipe bu Congo bi jël na le meilleurs Zamalek jël na les meilleurs attends tu pas Massembe yow nga ñëw di indi ay joueurs yoo xam mosuñu dem Afrique mais tu n'iras tu n'iras jamais en Coupe d'Afrique mm-hmm. tu ne dépasseras jamais les phases de poule mm-hmm. moi je pense que il faudrait que nos dirigeants nos dirigeants sachent que le football a évolué tous ceux qui sont acteurs qui jouent dans le terrain doivent avoir doivent une autre vie mm-hmm. euh, une médicale approprié une un un un, un appartement meublé euh, un moyen de locomotion bonne nourriture suivi par un docteur si tu veux aller ouais. en Afrique laa wax. non non dama dama ne si tu ah, veux aller en Afrique mm. remporter pourquoi on gagne la Coupe d'Afrique mais parce qu'on a pris des joueurs qui sont bien nippés mm-hmm. qui roulent bien qui se reposent bien qui mangent bien qui sont bien suivis par un docteur. merci doyen. Euh, attendez lu mu wax nii club yi. maanaam benn président lay am président bi mooy day day dañuy dañuy yor section football yor basket yor handball yëpp hmm. te même président bi mooy génne ci poche am di ko def est-ce que di doyen raconte fi yëpp tu penses que war na mën a nekk ak ci basket bi nii. en tout cas tous les ingrédients. Okay, les moyens moyens. non les tous moyens les ingrédients sont là les moyens simplement dañ leen mobiliser te pour mobiliser leen il faut de l'ingéniosité mais ça commence d'abord par réformer. Hmm. notre sport muy football di basket. aujourd'hui l'équipe dont on parle s'appelle AS Douane mhm. AS Douane falaa ja jaar de falaa jàngee basket <laughs> minime cadet junior et tout bëgg naa leen torop mais saa waay euh, Douane warut mën a yore équipe lu dul équipe corpo hmm. port autonome de Dakar warul mën a yore équipe lu dul équipe port corp euh, corpo yii ñuy tudd nii AS Douane port à elle seule douane ak port ñoom ñaar rek war nañu mën a financer le sport sénégalais. nga jël société de. Sénélec Sénélec société de l'ONAS rek pour ne pas la citer à elle seule elle peut financer le sport sénégalais j'en suis convaincu parce que il font des dizaines et des dizaines de milliards de chiffre d'affaires ku ci nekk sa dizaines et des dizaines de milliards boo ci génnewoon un pour cent wala deux pour cent def ko ci sport bi tey lan moo tere tey man je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tey l'ONAS newul damay signer un contrat de partenariat avec la fédération sénégalaise de football ou la fédération sénégalaise de basket chaque année je leur donne cinq cent millions lan la leen di wàññi parce que cet argent là va revenir au club mm. ñu leen di financer parce que aussi quand je parle de réforme euh, il euh, la réforme Lamine mm. on est football on peut la dupliquer wala ñu améliorer ko def ko ci tous les sports sur tous les sports collectifs au Sénégal il y a 48 mm-hmm. on a 14 régions 48 départements mais tey boo xoolee trois quatre clubs presque ay tali moo leen di séparer mm-hmm. ah, man par exemple dangay basket yëpp Dakar lay ma ah. basket tey le championnat de basket mm-hmm. ay équipe bu koñ la et quand je koñ c'est des quartiers de 3000 âmes à à tout casser tu alors que tey li AS ville de Dakar def AS du ko teree fusionner ak Jaraaf mm-hmm. AS ville de Dakar buy génnee ay moyens le président du Jaraaf di génne ay moyens am keneen ñu dem un club de ville fort créer une histoire entre ce club là et les populations moom une adhésion populaire xam nga mm-hmm. mais boobaa tu vois ce sera facile de mobiliser de des des, des sponsors ce sera facile parce que billetterie fayul loolu xam nañ ko mais boo amee ay sponsors du dëgg mm-hmm. ñuy dugal seen xaalis mais sa va te permettre nga nga professionnaliser ce sport jël ay joueurs di leen fay un salaire décent qui leur permettrait non seulement de vivre de faire des économies mais de se concentrer sur le sport bi ñu pratiquer. kon est manque de volonté. manque de volonté am na et parfois même des acteurs eux-mêmes ñi nga xamante ne ñoo ne ci biir. xam solution yi. mais du leen arranger pourquoi. ah mais parce que c'est des c'est des intérêts personnels. mais attends euh, euh, dañuy waxtaan aujourd'hui euh, le football. est-ce que tu comprends je parle pas je parle de ceux qui doivent changer le football lan euh, euh, euh, le gouvernement le le ni ñu koy waxatee le sport nañ ko jox ga akam parce que aujourd'hui ce que le sport mobilise comme être humain mmh. aujourd'hui on parle d'emploi des jeunes mais le sport ñaata jeunes lay employé combien de jeunes le sport peut employer basket football handball volleyball tout ça projet boobu pourquoi duñ ko indi ci sport bi pour aider les présidents de club yi nga wax ni léegi dañuy génne seen moyen état bi yëkkati deux cent cinquante millions pour chaque club mu jox am na fii ñu ngi koy wax am na fii pourquoi duñ leen dimbali pourquoi parce que dañu jël football def ko sport dañu ko jëpp foofu parce bu Sénégal di football ñëpp di saaga jour bu yàqee match di def nii mais attends il faut arrêter ñii ay doomu jàmbur lañu di liggéey te xam nga football ak sport ak basket c'est quinze ans mm-hmm. nga bëgg leen jël def leen ay professionnels est-ce que tu comprends di leen fay trois cent mille trois cent mille lu mu mën gérer par pour euh, un sportif wala deux cent mille wala cinquante mhm. après mu pourquoi parce que l'État ne suit pas l'État ne veut pas aider euh, aujourd'hui le président Diomaye dit qu'il va aider la ministre des sports dit qu'elle va tout faire pour que le sport euh, soient bien soient bien vus au Sénégal mais on va on les écoute on les attend parce que les présidents sont fatigués les footballeurs les sportifs sont fatigués mhm. la fédération débloque de l'argent pour aider alors que la fédération ne doit pas aider certains secteurs la fédération doit travailler pour le football local mmh. est-ce que vous comprenez mhm. ah, donc je pense qu'aujourd'hui ñëpp dégg nañ ko les moyens sont là il l'a dit même bu dee port autonome c'est c'est pour c'est pour la nation. Mm -hmm. N'est-ce pas? Vous avez une équipe, mais donnez des subventions aux autres équipes. Mm -hmm. Mais attendez, la douane donner une subvention, le port donner une subvention. Euh, attendez, parce que vous, vous êtes pour tout le peuple, vous avez créé une équipe, comme ils disent, vous devez être corporatif, vous l'amenez dans le championnat. Maintenant, vous donner de l'argent aussi aux autres clubs. merci beaucoup doyen merci beaucoup doyen Lamine Mboup parce que daanaka waxtaan nañ maanaam une heure li nga xamante moo jëm ci wàllum basket bi léegi nag 30 minutes moo ñu dese euh, ñu waxtaan li nga xamante moo jëm ci wàllum football. Euh, semaine passée la équipe bi nga xamante moo di FC jël li nga xamante moo di championnat bu Sénégal mu mel ni kii di Grégoire Ngom def na li nga xamante ne moo di ci saison bi ñu nekk te ngay jëf see mi nga xam ne moom moo gàdduwaat raaya bile wane na ci rek pas-pas wane ci taxawaay bu mot sëkk boo xamante ne nii ndëgër lay kott la ci taxawee woon na nañu doore championnat bi wute lool ak nañu ko jeexalee ci dibéer bi ñu weesu ci kanamuk génération foot rek lañu daal di ndar képp yëf fii lu ni mella di fësal rek ne loole moom mooy seen ak ñaareelu ka titre ci seen ak taarix ci Ligue 1 bu Sénégal ci kanamuk jaraaf bu Dakar waaye ngay jëf FC champion la boo xamante ne la muy firndeel ren jii nii ca la mu wone bëri na lool la bu ñu yéegaatee sax ba ca ginnaaw di ko fàttaleeg président Babacar Ndiaye jàpp nañ ne rek téeméer boo jël juróom fukk yi rek am nañu ko ci ay victoire seen ak équipe nekk équipe boo xamante ne rek mérito na bu baax a baax li ko daal di dal tey jii maanaam ay performance yu mucc ay investissement yi nga xam ne jot nañu ko ci def doon loo xam ne tey jii rek mu ngi woy di feeñ ci seen ak équipe bu mag bi. weesoo loolee ci saison bile te ngay jëf si ànd ceek entraîneur bu xarañ boo xamante ne rek wone na ni dayoo ma tey jii moom moo waral équipe bi daal di àgg fii donte jafe-jafe yi amoon na Cheikh Gueye fexewaat na ba équipe bi daal di gisaata constance bu mot sëkk ba mu yoroon na. bu weesoo administration bi lekk lépp loo xam ne daal moom moo ca jëm Cheikh Gueye daal di woon a fësal ni ab entraîneur yemul kese ci wàlluka physique ak tactique waaye ci mental bi tamit lay joué la te nga jëf see ci ginnaaw jafe-jafe yi le bëggul woon benn yoon gëm rek ne titre bi la ñuy wëri ci bileeg championnat la ñu gis tamit moom moy équipe la boo xamante ne rek amoon na benn pàcc seen ak meilleur buteur leen woon ginnaaw daal di rek signé beneen ak contrat loole kon sax ci li taxoon ay laaj sampu ak lan mooy doon seen ak ëllëg. ci bileeg attaque waaye rek liggéey bay woy te ngay jëf see firndel ni ab grenier la jamono ji budget dugal nañu leen tëj seeni camp ba fexe rek bandar kepp yëf yi champion la boo xamante ni tamit ren jii nii dese na ni la bu bëri te ngay jëf see mu ngi rek dàqaloo loole ñu duppee le doublé ndaxte dëgg la ñu ngi bu baax a baax ci coupe bi kon bokk bu ñu ko jëlaatee bokk na ci li nga xam ne moom mooy gën a taaral seen ak saison. merci beaucoup euh, Grégoire ngoom ci papier bi nga xamante ne defal nañu ko si waa Tëngëj euh, FC euh, mais doyen nan ngay comprendre li nga xamante ne moo di constance su Tëngëj FC parce que depuis bu ñu yeggee première division ba tey vraiment jënañ deux fois li nga xamante ne moo di maanaam champion championnat bu Sénégal na nan ngay ba tey jusqu'à présent ñu ngi joué li nga xamante ne mooy les premiers rôles seen constance. écoutez une belle constance un grand champion moi je dirais euh, si boo leen xoolee parcours Tëngëj FC depuis que ñu Ils ont un président qui sait là où il va, qui, a, qui met les moyens pour prendre les meilleurs joueurs. Et qui met les moyens parce que Feu Alassane Dia avait fait une bonne politique pour cette équipe, qui est décédée malheureusement comme manager général. Et c'est ça qui est resté encore avec ces entraîneurs qui sont venus. Beaucoup d'entraîneurs sont passés par Tengue et aujourd'hui ont eu des galons. C'est parce qu'il y a eu un travail qui se fait par le président et par le comité qui dirige le club et des entraîneurs qui savent que quand ils viennent ici, c'est pour un résultat que leur demandent les entraîneurs. Des joueurs aussi qui sont superbement payés. J'en sais quelque chose, je parle souvent avec le président. Les joueurs de tennis ne diront pas qu'ils sont malheureux. Mais aussi, euh, cette, euh, cette, euh, cette participation africaine, avec l'élimination qu'ils ont eu à faire euh, Oraja euh, a motivé encore pour savoir qu'ils peuvent, qu'il y a, il y, a des, il y a des joueurs sénégalais ou des équipes sénégalaises qui peuvent aller faire comme la Jeanne d'Arc de Dakar. Et Tengue FC est dans cette constance et je dirais que c'est un super champion, un grand champion parce que durant ce championnat, il était défendu par Dakar Sacré-Cœur. Mmh. Ils se sont battus pour venir prendre la tête. Et depuis qu'ils ont pris la tête, ils n'ont pas régressé d'un iota. Et pourtant, derrière, il y a le Grand Jaraaf qui était en train de faire une belle performance Teungueth n'a perdu que quatre matchs durant tout le parcours et malheureusement à la maison contre Guédiawaye alors que ils étaient à 3-3 ça n'aurait pas pu être un match on a parlé de l'arbitrage mhm. etc il y a aussi le match qu'ils ont perdu contre le Jaraaf non mais sinon ils auraient perdu que deux matchs ce qui veut dire que Teungueth c'est un bon groupe et il y a l'alternance des anciens Euh, des nouveaux parce que Teungueth FC même sa petite catégorie il y a des joueurs qui il évoluent en équipe première euh, qu'ils commencent à former moi, moi je pense que c'est bon c'est un bon travail de ça que le président Babacar Ndiaye a fait euh, par rapport à ses entraîneurs et à ses joueurs il leur a, il les a motivés et il est toujours présent dans les tribunes il est toujours en train d'être avec eux et de le, le coach la dernière fois disait qu'à un moment donné, quand tu vois que l'équipe ne, ne, ne, va pas bien, il leur dit, écoutez, coach, j'ai amené deux semaines ou une semaine les gosses en regroupement. Je vais les il les amène les gosses reviennent en pleine forme hein? quand ils gagnent un euh, ils n'ont jamais de retard de salaire ils sont toujours euh, dans de bonnes dispositions moi je pense que c'est ça qui a motivé les joueurs de Teungueth FC jusqu'à ce que ils en tout cas euh, il faut féliciter le président Babacar Diagne féliciter l'entraîneur euh, Cheikh Gueye et surtout tous les joueurs de Teungueth FC et les supporteurs aussi qui n'ont pas euh, lésiné dans les efforts pour suivre le club partout. Euh, si li nga xamante ne moo di saakaru bu Tëngéej FC vraiment mu nekk euh, euh, seen deuxième seen deuxième trophée li nga xamante moo jëm si wàllum championnat ñu war a représenter Sénégal li nga xamante moo Ligue des champions euh, africaine d'abord si saakar bi. bon c'est vrai que dañuy wax deuxième mais mun na bañ ne troisième parce que bu ñu fàttali ah année Covid bi ils ont fait une première <laughs> partie de saison sans défaite l'avait gagné bon malheureusement ñu arrêté ko mm-hmm. mais si sur le terrain ça ne va pas résultat du mais lui il a su dupliquer cette organisation là administrative sur le terrain am la confiance des joueurs am la confiance du public même si parfois c'était tendu mais c'est normal mm -hmm. c'est dans un championnat il est normal que parfois qu'il y ait des tensions parce qu'une équipe a besoin parfois euh, d'avoir de sentir une certaine pression pour mën a sublimer wu et ce qui est très important d'ailleurs Grégoire a parlé de mental mm -hmm. parce que Tëngéej a perdu deux fois. là où Jaraaf. Euh, pu revenir mais le Jaraaf aussi malheureusement a trébuché contre euh, xam nga jamono Fatick. exactement donc dañu dañu perte. match bi ñu gagné. bi ah, ñu perte contre AS Pikine ñu parce que ñëpp foogoon nañu ne à ce moment là. foofu la ñuy jëlee virage bi. virage bi wala jaraaf ñëw jaraaf aussi a perdu mais ils ont trouvé les ressources bu jugaan encore gagné waat ce point contre Génération Foot. Mhm. à domicile. donc euh, je pense que vraiment c'est c'est un beau champion comme il l'a dit il fait il mérite ce, ce titre là. mais am na beneen pas bu ñu war franchir mooy la Ligue des champions. exactement maintenant ce qu'il faut. Euh, c'est continuer à travailler je pense que ñu am repos. Mm. parce que c'est le moment peut-être de voir yan partie yan secteur si terrain la ñu war a ut ay renfort mais quand je dis parce que bi ñu année bi ñuy dem en en en Ligue des Champions avec euh, avec qui ont eu à côtoyer les équipes nationales et ça leur avait ce plus-là xam nga il est important parce que bii nii malheureusement l'équipe nationale locale n'a plus joué depuis le Tchad mhm. bi passé donc expérience africaine bi amuñu ko il va falloir qu'ils trouvent les moyens d'aller peut-être chercher deux trois joueurs qui ont ce vécu-là peu importe ndax ay sénégalais la ñuy doon wala yeneen mais euh, suñu bëggee génn phase de poule parce que l'intérêt c'est ça nous nous kenn tour préliminaire ñu éliminé la mhm. nga dellu si waat nga recommencer à ah. zéro mhm. nga perte say joueurs yi dem Europe mhm. nga recommencer ton projet à zéro année ah, kii année bi ngay xeex pour le maintien parce que la plupart de nos clubs de football ici noonu lay demee ah oui une excellente saison <laughs> année année bi ñu gis la au milieu du tableau ngay xeex foofu donc il va falloir qu'on euh, comme ni ñu wax te loolu il faut ñu dugg ci professionnalisme carrément carrément nga xam de je je donne l'exemple dans le basket de la balle balle balle kañ la ñëw 2021. ah ah léegi teel a ren la am 4 ans. ils ont super investi je je peux dire xoolal ren fi ñu egg en 2024 donc sport sport léegi business la. Mhm. ak vision ak projet. léegi il ne s'agit plus de compétir cette compétition la ya y un projet business boo xam ne mooy tourner autour. donc nos clubs de football loolu moo leen di mën a may ñu egg ay niveau Espérance de Tunisie Al Ahli d'Égypte TP Mazembe. Zamalek Zamalek. donc tu vois donc il va falloir léegi sax maa ngi dégg ñu naan léegi tendance bi mi ngi fële. Tanzanie. Tanzanie waaw. y a même des joueurs des footballeurs sénégalais yi dem en Tanzanie donc pourquoi pas essayer de mettre en place un modèle boo xam ne ça va nous permettre. Mm-hmm. si chaque club bu ñu amee challenge chaque club dit je veux dominer le football sénégalais. Mm-hmm. pendant dix ans. pour que chaque année man may préparer samay projet pour les compétitions africaines. Mm -hmm. là on pourrait avoir un bon niveau te loolu laa leen di ñaanal quoi. waaye ñu ngi jëm Afrique Afrique lañ la Louis Gorée hein, qui tenait les rênes du football sénégalais. Mhm. C'est parce qu'il y avait de grands dirigeants qui avaient les moyens et qui allaient chercher les meilleurs qui étaient à Saint-Louis, qui étaient à Kaolack, qui étaient à et il affaiblissait les autres équipes pour se renforcer. Mhm. Et arrivé à là, la gendarme est arrivée deux fois en demi-finale de la Ligue des Champions avec euh, en éliminant l'ASEC d'Abidjan en quart de finale et en, en, en faisant une demi-finale contre le Karat de Brazzaville. Donc ce qui veut dire qu'avant loolu la woon Omar Seck quand il est arrivé il a dit le championnat ne m'intéresse pas je veux aller gagner la Coupe d'Afrique. Alors quand on veut aller gagner la Coupe d'Afrique qu'est-ce qu'on fait? on, on va recruter de grands joueurs. Mm-hmm. À ces quand ils sont venus ils ont pris le championnat facilement c'est ça l'objectif aujourd'hui Teungueth FC il doit se dire le championnat ne m'intéresse pas qu'est-ce qu'il vous faut c'est aller en Afrique aller remporter ou aller en demi-finale de la Coupe d'Afrique qu'est-ce qu'il faut aller chercher des joueurs les mettre ensemble avec ceux qui sont là et là on déroule on déroule ça peut être une deuxième euh, championnat parce que les joueurs ont tellement un bon niveau que quand ils vont venir ici euh, ça va être de la Thierno c'est de quoi je parle tu peux investir déjà chaque tour c'est 750 millions ou plus que tu gagnes Imaginez que vous payez un jour 2 ou 3 vous allez au Mali, vous allez euh, au Burkina, vous allez, euh, dépenser peut-être millions, vous allez en Coupe d'Afrique, chaque tour 750 Vous rattrapez avec l'aide de l'État, avec les sponsors. Et quand vous gagnez et que vous allez en Afrique, mais c'est beaucoup plus de sponsors qui vont venir. Et les télés vont venir aussi pour vouloir filmer. Et les télés vont payer aussi pour vous filmer. Et c'est ça. Sénégalais et je pense que c'est dans cet esprit mhm. euh, que tout le monde doit euh, penser pour que Teungueth FC aille loin dans cette Coupe d'Afrique. d'accord merci beaucoup euh, doyen léegi nag dañuy sóobu euh, dañuy sóobu ci li nga xamante ne juste mooy match équipe national yi mu war am ñaari match yoo xam ne ñu ko war a jouer jeudi le 6 ñu RDC suñu deuxième match bi mu war a nekk le 9 fële ca Mauritanie mu nekk qualification jëm ci wàllum li nga xamante moo jëm ci coupe du monde est-ce que jot na ñi nga xamante ne moom la ñu woowee xale yi. ñëw jël la nga xamante moom le pouvoir parce que ñu ngi fi nekk comme ni ñu ko yàgg wax noyau dur bi maanaam def seen temps ba pare est-ce que da nga ànd ci analyse yi nga xamante ne moom la consultant yu bari di di di di di bon man tout ça j'ai tendance à relativiser parce que damay wax ni que euh, ñu Sénégal dañoo gaaw màggetal joueur mm-hmm. Mm-hmm. xam te euh, dañoo te ñun dañuy def tout le temps dañuy naan am daal toj daal moo tax boo de boo amee daal toj daal doo dajale ay ndaal donc euh, ku xool Idrissa Gana Gueye comment il a terminé la saison est dafa war a génn équipe bi tu vois avec son âge il fait ce qu'il fait et il est décisif parce qu'il marque trois buts sur trois journées qui permettent à son équipe de rester en première ligue donc tey kooku bu ñëwee équipe nationale sa waay qui va remettre en question sa présence tu euh, Lamine Camara bi ñu wax moo ko war a succéder lui il est relégué par contre mm, tu bien vrai qu'il a du talent et cetera man je pense que affaire bi dosage la c'est une affaire d'expérience xam nga de jeunesse et de talent donc il faut trouver le bon dosage parce que euh, jeunesse peut-être ñoo lay indil doole ñoo lay indil fougue ñoo lay indil peut-être détermination ak envie bi ainsi de suite mais expérience moo lay permettre ba match bu amee tension ñu calmer ko bu xel yi xawee jànnaxe ñu ramener tout le monde euh, euh, euh, euh sur terre ainsi de suite euh, nañu def nank rek. Mmh. une transition elle se fait pas du jour au lendemain ça se prépare parce que de toute façon inéluctablement il y a des jeunes qui vont sortir c'est la nature qui va les sortir parce que. dem nañ ba mais est-ce que ko démarrer parce que boo xool li nga xamante ne moo di kan bi. Mmh. jour yi nga xamante ne si euh, mënuñu kon suñu yaakaar wax dëgg yàlla parce que majeure partie dañoo passé à côté. oui mais mais enfin non pourquoi parce que euh, tey. des joueurs expérimentés c'est qui c'est Sadio Mané c'est Kalidou Koulibaly euh, c'est Gana c'est c'est Edouard c'est dans dans l'ensemble ils ont été bons peut-être Gana n'a pas beaucoup joué dafa ñu indi blessé kii am mais Sadio tu peux pas dire qu'il est passé à côté de de, de la CAN euh, Kalidou c'était pas le meilleur Kalidou mais sur le reste de la saison il a montré que ça reste un énorme défenseur et tu vas jouer contre la Mauritanie tu vas jouer contre la RDC RDC la RDC quatrième tey da ngay jël de jeunes joueurs à domicile chez eux ñu war confronter au quatrième. de la CAN et pourtant ils ce sont des jeunes. oui mais pas tout le monde y a ils ont aussi des joueurs expérimentés. et justement puisque ñoom c'est des jeunes ñun nañ leen tegal expérimentés <laughs> parce que dama lay fàttali benn affaire. Euh, Côte d'Ivoire c'est les joueurs expérimentés qui leur ont permis de gagner la CAN c'est pas les jeunes. parce que da ngay xool euh, quand Gassé est venu il a il a pris des jeunes dugal leen ainsi de suite on a vu mais Enas Faye bi mu ñan la dugal. Jean Jean Michel Seri ak ak ak kii euh, euh, Gra Gradel c'est eux qui ont fait la différence contre le Sénégal ils ont noyé nos milieux de terrain gisatuñu leen ils n'ont pas existé dans ce match-là te ñoom ñaar ñëpp ils culminent à 38 37 38 ans mhm. tu vois donc expérience dafa am fu mu baax munoo ne am na ay jeunes rek tout de suite dama leen comme je dis c'est une transition douce mhm. la transition elle commence l'équipe que Aliou avait en 2015 ce n'est pas la même que maintenant il y a des joueurs qui comme je dis naturellement dañuy génn mhm. tey il n'a pas sélectionné un Cheikhou Kouyaté peut-être qu'il ne va plus le sélectionner parce qu'il ne joue plus mhm. malheureusement son âge fait que peut-être mënatul jouer donc pour que mu jouer il va tu as un Ghana qui continue d'être performant mhm. donc forcément tant qu'il ne prend pas sa retraite internationale tu besoin de lui mhm. donc nañ def nank xam nga ñu ñu bàyyi jeunes yi progresser mhm. tout doucement apprendre aux côtés des jeunes il y aura des matchs yoo xamante ni tu auras plus besoin de jeunes mais il y aura d'autres matchs yoo xamante ni tu auras besoin d'expérience donc autant les avoir euh, les deux dans ton équipe Abou ñoom match bu match bu match bu capital mën nga ko jàpp ne contre RDC jeudi match bi naka lañ ko ba génn ci sachant bien que équipe bi nga xamante moo di RDC avec ses joueurs yi nga xam ay Wissa ay Sanchez Memba du doon match bu bu bu facile. ah du doon match bu facile moom parce que match éliminatoire coupe du monde la te euh, il faut qu'on se la vérité on a plus cette équipe du Sénégal bi ñu amoon en 2019 2021 donc ñu ngi wax naan transition expérience jeunesse actuellement ci stade boobu lañ nekk di poser euh, des questions mais pour ce match la il va falloir avoir. Euh, déjà une équipe solide parce qu'on joue à domicile. Mhm. On n'a pas le droit. On revient d'une défaite à la canne. Mhm. Donc l'équipe a besoin, l'équipe du Sénégal a besoin de repartir de l'avant. Donc il va falloir euh, trouver la bonne